dikkati naa xam nga mbégteel la nga gestu ñu ne la xët tàppit laataa ngay laajte lu xew ñu daal di lay galgal ti ba biir weex daal di teg ci suuf ndengeñ tribune yéen a kaay nan man dafa mel ni Khalifa Ababacar Sall ki gaayam lii la ñu def na coalition yeewi askan wi gaay yeewi nag mer ba futt mënuñu leen ko baal moo tax keroog ca yeesalu bureau assemblée nationale ba metti na ci ñoom wala waa yeewi naan waa xaaf dañu leen wor ndax Barthélemy Dias lim leen def keroog ci dialogue national bi wor dëgg la waa ji nag jaar ci porox ndoll ak fu mu fexe na ba candidat moom bokk ci élection yi te loolu dara du ko dindi vox populi naan maan en tout keroog ci assemblée nationale la fa am xaaf day ma nga jàpp ci loxol ay député am naan leen tenkiw na ngeen ko defee noonu la Abba Mbaye naan Khalifa Ababacar Sall ci boppam moo leen démissionné leen ngeen nekk ay député yoo xam ne non inscrit lañu Abba naan leen mani la tey jii nii ña xam ne ñoo woote gatsa gatsa fan la ñu ci réew mi bu ñu wootewul woon gatsa gatsa demoon wuy ji mbaa mi dañu ne bi ngir nga am saafara ci crise politique bi nga xam ne moo am ci réew mi waaye xeex ak état mi nga xam ni maar day taali état daa am doole loolu daal du woon solution abaane tey jii ña ko doon woo ci gatsa gatsa ga ba Sonko tey ma nga prison tey ñoom ñëpp candidat lan Le Quotidien Le Quotidien naan ko déet Ousmane Sonko kay nekkul prison moom Sonko mi ngi fii ci l'hôpital tëdd bës bu yàlla sàkk ci gafak askan wi ñu fayal ko ci fan fanweeri junni juróom ñaar fukki fan ak ñaar tey jii Ousmane Sonko nekk ko Sonko tàbbalaat kaso abaa naan en tout cas ñi ko teg situation bi tey ñoom ñëpp candidat lan turbine yéen kaay naan leen fël ngeen gémbi ñu sàmb dama ne candidature yi bari na lool ci yeewi askan wi te yeewi askan wi daanaka ay calcul ay manœuvre ku ne di jaay sa moroom duuf xel di jommalante ci biir ne sikundiik sikundiik yéen kaay bi naan maan moo tax na coalition ba daal dinay tas tasar ña nga xam ne nag daal dinañu doon bàyyi daar soon ña nga xam ni gisoon nañ lii xam ne mbir mi ci tas lay jëm te ñu bàyyi woon ca ndorteel ga anañu riigu leen ci siis ñëw jàkkaarloog askan wi te bu ngeen jàkkaarloog ñoom dëgg-dëgg du ngeen sëgg ndax tey jii la ngeen bañoon ca coalition ba ci boppam moo fa am ña ngay demante laa la wax ci seen biir Dakar Times naan maan waxtu woowu day Amadou ngay falaale moom premier ministre nag dem ci kër kilifa diine yi diggante Saint-Louis Richard Toll Fuuta ak la ko wër naan leen yéen laay wër Walf Quotidien naan maan waxtu woowu Khalifa Babacar Sall moom daanaka yot ci réew mi diggante Pastef nee ko ba max acca Benno Bokk Yaakaar sañu fa dem fi ne fu xaaf di féetee mooy coow li 24 heures yéeni kaay naan kon en tout cas parrainage ki mitti na de ndax am na ci ñoo xam ne laa la ngir am parrainage jafe na ci ñoom Pape Djibril Fall naan waa diaspora xàmmee leen ñi am fukk ak ñetti député ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ci maire ñoom soxlawuñu parrainage citoyen dañuy def sabotage Abdourahmane Diouf naan fi mu ne daal coalition yu mag yi lu ñu am am moyen yeneen parrainage duñ ko def de dañuy kar daal candidat yi nga xam ne bokkuñu ci coalition jël parrainage citoyen yi nag daal di leen bàyyi ñu ne tocc Dakar Times naan kon en tout cas Amadou Ba moom ma ngay doxal wel l'observateur naan ko doxalul dara moom amadu Ba dañ koo tënk ñàkkuk liberté jàpp na ko moom Amadou Ba puusul paasul xeexul attewul xeex Amadou Ba calcul yi bari na ci moom ci boppam Amadou Ba mani la dafa wéeru ci ginnaaw président Macky Sall te wéeru googee mu wéeru ci moom nar naa miti wala fi mu ne nag bu xàllul yoonu boppam bu waroog bu président Macky Sall gaa yi day mën nañ bank seen loxo bañ koo woteel te bu démarqué wooy Amadou mën naa miti ci moom de ndax bilan bii muy joxe bu président Macky Sall la du bosam discours de rupture moom mënu ko moom Amadou Ba te fi mu ne nag waa biir coalition am ci boppam dañoo njortu nay bés bu nu jàppalee ba Amadou Ba mii falu wor gay tàbbi ci ñoom dana metti ba maar day taali tribune yéen a kaay naan man demal ba Tambacounda xaajoo ñaar la fa coalition ba def ndax audience ba nga xam ne Amadou Ba daal dina koy def te waxtaanu ak ay ñooñu Sidiki Kaba loolee nar a ñàkkloo coalition bi ca Tamba l'évidence yéen kaay naan man ca Diourbel it boo moytul lu ni mel dina fa am bi ndax nag Moustapha Guèye ci boppam la ñu wax mu woote fukki maire ak ñaar ya nekk ci Jurbel kenn naa dem ji ñu ne déetawaay ñu wax Omar Ba président bu meeri Sénégal yi mu woote ñetti maire wuy ci fukk ñaar ya moom faatu jaane ci boppam ministre bi woo na maire yi maire Jurbel yi te tëj ci kenn nangul wuy ji ndax nag maire yi nee ñu fukki weer ak ñett ngi nii ñu bàyyee leen seen bopp kenn woowu leen kenn nemmeeku leen ñu am fu lay dëddu na coalition Benno Bokk Yaakaar daal koy wan ginnaaw te fi mu ne nag bu élection présidentielle yi wéyee nii ma ne la coalition Benno Bokk Yaakaar dana tële ca diwaanu Jurbel te boo moytu lajj lay def ndax waxuma la maire yi rek waaye ndaw yi responsable yi ñëpp raxasu ca coalition bi tribune yéen kaay naan maan la leen dal di dalul sigi coor foofee Lamine Maane mani la daal dina yëngal gësam tribune naan maan borom mouvement jant bi daal dinay dajale waa sigi coor yëngu-yëngu am ci wàllu politique foofee waaye ay financement juddu ca tribune yéen kaay naan maan booba Malick Cissé sociologue spécialiste ci wàllu politique urbaine ma nga naan Amsatou Sow Sidibé yaakaar la goo xam ni ngi nii sénégalais mën nañ ci wékku laas naan maan en tout cas Anta Babacar Ngom dikk na turbine yéene kaay naan maan moo taxit APR ñàkk nañ kenn ku leen doon jàppale muy Sidi Mokhtar Koli ma nga xam ne tey jii takk nay bagaasam dem jàppale ji Anta Babacar Ngom Sidi naan dara naqariw ma ci APR lu dul sàcc gi nga xam ne ma nga fa bari lool ñu koy sàccalalu askan wi te furaas daal di xidéem du mujjee fenn moo tax nag damay xool dëgg-dëgg koo xam ne loxoom set na ma daal di ñaabar ñaabari dem ànd ak moom yéene kaay bi dee bi naan maan laaj bi samp mooy ministère bi nga xam ne moom lañ dénk bonne gouvernance dénk ko promotion des droits humains loolu nag ban xeetu ministère la le mandat naan maan booba Bougane Gueye Dany mooy parrain d'honneur bu Liska le témoin yéene kaay naan moom Bougane Gueye Dany dugal na loxoom ci xeexu woppu cancer gi direct news naan koon demoon na bokk ca seen randonnée ba ngir xeex woppu cancer le mandat naan kon mook ay doomam kay ñoo daal di soobu ci xeex bi l'évidence yéene kaay naan man mobilisation bu Liska bi Bougane Gueye dugal ci loxoom tribune yéene Momy Seck génn àdduna te dara waralu ko lu dul wopp ju bon jii di cancer tey jii nag moom Bougane Gueye Dany ne tey sama yitte yépp dama koy def ci xeex woppu cancer googee ndax fii ci réewum senegal téeméer boo jël ci ñi nga xam ne am nan wopp joojee juróom-ñeen fukk ak juróom-ñaar sëngeem nañu jaaxle nañu ndax koppar goo xam ne mën nañ faju faj mu cher loole moo leen daal di sëngeem loo feebar bi metti lool waaye faj ko daal di cher lool moom jiital gëm sa bopp naan tey dugal sama loxo ci xeex bi wareef la te wareef googee duma ko wàcc demal ci l'hôpital Sénégal yi bari na ci ñoo xam ne ñi wopp ba tënku ci ay machine fi mu ne ñi ngi dund jafe-jafe yoo xam ne maar day taali le mandat yéen kaay naan man coow li du foofu kese de ca wàqi naan Nimzaat mani la maire ba Racine Talla ma ngay wax ne jàngalekat yi matuñu foofee na ci nguurug Sénégal daal di wax daar daar lu ko may làmbaay mën na ñaaw à tout foofe foofee moom Racine Talla naan fi mu ne ndongoy jàng lañ bëgg kon nag ministère biñ ko dénk na daal di gestu gox boobee ngir njàngale mi mën faa ñoŋ jàngalekat yi mën a doy daanaka jaxannama la gaa yaa ngay def pétition ngir bato yi daal di dawaat libération yéen kaay naan man nit dof génn na kaso waaye tey la gën a tar ci waa Pastef yi ca sigi moom lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay détenu politique bokk na ci ñoom ay ndongo ñi ngi ci xiifal fii ci ndakaaru moom Falla Fleur Mati Sarr Niang aji ndaw yéen kaay bi naan man ñi ngi leen jàpp waaye nañ leen jàppee metti na seen nekkin ca kaso ba metti na ba jéggi dayoo yéen kaay bi naan man waxtu woowu caare sur mer seen ba kenang ci xottu gerte benn pipeline bu saar mën na leen jural musiba à tout moment libération naan man musiba gaa ngi nii de Habib Boulaye Diène mi nga xam ne waa ji da ko faatoon ca pari njort ne moo sàccoon téléphone am ya fekke woon mbir ma ne Habib Boulaye mësta sàcc téléphone te faat gim ko faat moo ñaaw ndax jaasi la jël daal di xar bopp ba ca digg ba xar wa dafa ñaaw ba nii nga doon séene yuur yéene kaay bi naan man Aubin Makiadi mi nga xam ne moo def lu ñaaw lii dib congolais tey jii la ñuy tàmbali ab àtteem ca Paris